waaw madame jatu jattu ah madame Diop ba li nga def xeeboo ko ah ko <laughs> yàlla bu ma ko xeeb ah madame Diop bis bi nag tey looy yëg ci bis bi tey ji ah rek nag xam nga ko ñuy sagal sa jëkkër moom ah xanaa santa rek dunda ba nit ñi di sagal bi Sénégal moom santa rek moom waaw sant rek de remercier ñëpp nag remercier chaque remercier Pape Diouf bu baax a baax a baax waaw